يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لا لا لا لا لا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki téléspectateur u Refane TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ndokkeel ci weeru mag wu tedd wi ñu nekk muy shahru ramadan mubarak di weeru formation niñ ko waxe ci suñu émission berne bi jàll ñu war cee tàggatu rawatina suñu bàkkan fexe góorgóorlu ba jaamu yàlla santaane borom bi woyof lool ci ñun waaye ñu dem sax ba di ci yëg bànneex e, loolu moom la koor jàngale si ndax xam na ni yàlla ni mu bind nit li gën a tàqool mooy lekk ak naan lekk ak naan moom yi nag bu la ko teree ci biir weeru koor wi nga sax ci di ko moytu di fooglu suñu borom di ko bàyyi xel foo mën a wet xam ne mu ngeek yow ba tax nga weet ak loo mën a lekk weet ak loo mën a naan waaye bàyyi xel gooy bàyyi xel yàlla tax nga téye ca sa bopp moytu loola xeex ak sa bànneexu bakkan loolu ku ci sax ba weeru jeex war naa jëmbat ci yow jikkooy ragal yàlla te mooy bàyyi xel suñu borom rawatina tereem bi koor kon weeru formation la waaye nit ki bu ci nekkee ci biir weer wi war naa fexe noonu muy sàmme boppam ci bañ a lekk bañ a naan mu sàmme noonu itam ay cëram ndax euh, dañuy wax ne jàmbaar dëgg mooy ki nga xam ne not na bàkkanam not ay ceram waaye nit ki li feek notagut bàkkanam notagut ay ceram ak njàmbaaram des na moo tax ku mel noonu sax dañuy wax ni kenn waru koo jox yenn responsabilité yi kenn waru koo jiital ndax saa boo ko jiitalee mën naa topp bàkkanam kon nit balaa mat rek faw mu moom bakkanam ci di ko defloo waaye di ko bàyyiloo te nag yàlla moom loolu la bëggoon ci ñun xad aflaha man zakkaha wa xad xaaba kon koor noonu la mel ci ñun kon saa bu ñu ci duggee rekk nañ bàyyi xel ne suñu cër yépp dañ ko war a wooral wooral ko ci lépp lu yàlla tere farlu ci lépp loo xam ne ndigalal suñu borom la ndax weer wi saa bu egsee rekk mbaax day jàppandi mbaax day yomb waaye ab sefaa nit day jafe kon weeru rawante la weeru njëkkalante la weeru promotion la ngir am ngërëmal suñu boroom tabaraka wa kon mel na ni loolu mooy bernde tey bi kon dañuy ñëw ci naafila gi tey mooy naafilaag guddig ñeenteel sëriñ Suhaybu bu nee na ku ci julli ñeenti rakka bu ca nekk faatiha benn yoon ak kaafiroon ñetti yoon des na ko bindal te yaa booy jaamu yàlla ak junniy nit te des na ko jéggal bakkaaram yépp te bala moo jóge fa mu doon jullee des na ko jéggal bakkaaram yépp bala moo jóge fa mu doon jullee kon naafila la gu am solo yal nañ yàlla defal tawféex ñu mën koo joxe yàlla nangul ñu ko wassalaamu لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا